Wai nana shiri sama nana ya mate nelo. It's a joke, Give bu ndaw balaa julle jàpp. toog ci der bi ñaan lu mu ñaan. yàlla may koko déggal kii la jara may sa doom. biige laari kumba biige. soo ko jar ko ngoone. tey kay foon ma yaa tee ñalaw. taal ma ñool ñool kees kees ñool Oh, waaw bu ndaw balaa julli jàpp toog ci der di ñaan lumu ñaan yàlla may koko déggal ki la jara may sa doom biige lari kumba biige soko jal ndela ngoone chéri kay foon ma yaa ma bu ndaw balaa julli jàpp toog ci dara di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko dëggal kii moo jara sa doom piike laari kumba piike soko njaay ndeela ngoone serikaay foon ma yaa te nelaw sofër bu ndaw bala julli jàpp toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal ku la jara may sa doom biigee laari kumba biigee soo ko jàll ndee la ngoone séeri kaay ma yaa ma la toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal ki wajara may sa doom bigee lari kumba ngoone soko jajaro ngoone séeri kay foon ma yaa tere nelaw toog der di naan lu mu ñaan yàlla may ko ko biige jara may sa doom biige laara kumba biige soko janjala neere yeri kay foon ma yàlla teeneera soofër bu ndaw bala julli jàpp toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal jara may sa doom biige mari kumba biike soko jande la ngoone séeri kay foot mu yaw ma te nelaw bu ndaw balaa julli jàpp toj ci det di ñaan lu mu ko ko déggal ki a jara may sa doom biige naru kumba Choko jang carangone Serika ifon maya matenelo Rag gay de udal bana rag bigaw Sëfër bu ndaw balaa julli jàpp toog ci dedi ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko biige kile jara may sa dopp biige lale kumba biige soko jaañ ne la ngoone sérikaay fóon ma sëfër bu ndaw balaa julli jàpp toog ci deram di ñaan lu ñaan yàlla may kooko déggal ki a jara sa doom biige laara biige ma <laughs> laa ci mënoon nag san sëfër bu ndaw balaa julli jàpp toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal ki la jara may sa doom biigee lari kumba biigee soo ko janjala ngoone séeri kaay foon ma yaa ma sëfër bu ndaw balaa julli jàpp toog ci der di ñaan lu ñaan yàlla may ko ko déggal kile jaramay sa doo biige jaalikumba biige ci ko jaañak jeela ngoone serikaay foon ma ama te nelaw armée ay sooga yow mais la bonis loolu toog ci der bi di ñaan lu mu ñaan yàlla may ko dee ki ya jara may sa doom biige laari kumba biige soxo jaan corongoone serikaay foon ma yaama jarnel safar bu ndaw balaa julle jàpp toog si der di ñaan li mu ñaan yàlla may koko déggal kiiw la may sa doom biigee laari kumba biigee ngërëñoona goy ne seri say foon ma yaama teenelaw julli jàpp seri si der ngi ñaan lu mu ñaan yàlla may koko déggal kamba may sa doom biigee laari kumba biigee serena galbana wone sey kay foon ma yama te safar bu ndaw bala julli jàpp toog ci der di ñaan lu mu ñaan yàlla dënk ko réggal ju la dara may sa doom biige naari kumba biige soo ko jaaj ma rangoone seeri kaay foon ma yaa ko teenee sëfër bu ndaw balaa julli jàpp toog ci der di ñaan lu ñaan yàlla may ko ko déggal may sa der biigee la ngoone séri kaay fóot te nelaw bu ndaw balaa julli jàpp toog ci kër di ñaan lu lu mu ñaan suñu borom nangu ko biigee ndaru ko biigee su ko jantal ngoone seedi kaay foon yaa ma tere nelew chauffeur bu ndaw balaa julli jàppa toog ba ñaan lu mu ñaan yàlla may ko ko déggal kii yee may sa doom biigee la rekumba biigee Ndeye suma ndanan ma ndaanaan yaa ma tee nelaw mm, ah.